mbokk yi di suivre ñu ngi fii nag tey si Jaxaay open press Mama Lamine numéro 2 open press bi nag guddi na métti na mais garaaw loolu lépp làmb la bis bi nag mu war xew la mu diggante ak Boy Pire Boy Pire bu waalo Boy Pire bu yëngal Mama Lamine la si waaw jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw baat onze bilaa bismillah ni waan yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne sant yàlla jërëjëf Yonent bi di sant samay waajur waaw di sant sama sëriñ si Aïdara Mbacke ñaan yàlla mu fi ñaan ci Dame bu yag fi lool gis na seen taxaway bu baax baax baax di sant suma wa galé sant suma mam bu baax baax baax sant suma yaay waaw di sant wa jaxay yépp sama jigéenu koñi yi ñëpp aw ma seen fay di sant grand yépp di sant 100% bi di sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jaxay yépp ma leen sant waaw di sant sama secteur bi 11 b jaxay deux douze b si gendarmerie ah Kër Massar Guèye Gunaas ñoom maa ngi sant bu baax a baax di sant sama baax sama waaye sama lépp. di la sant ñëw ci làmb ji foo foo ci wàccaay bi suuf si mooy trois jours rek moo des ci bis bi lu neuf xam nga adversaire bi. waaw xam naa xamul làmb rek xam naa xamul làmb rek waaye. xamul làmb mooy la. waaw xamul làmb nii xamul làmb nii xam nga gis ko si ay combat am nii xam nga noonu waaw. moom nee na coow moo leen boole sax mais garaaw bu bëgg la woon bëri tey sax bëgg la woon bëri yow coow Amumolaj. Mo bëgg bëri man waaw. moom laaj dama bëree ñàkk di tax sama combat man ak moom. waaw léegi bëggoon nañu combat bu yàgg. waaw bëggoon gars yi ñoo ko bëggoon. waaw waxuma ci woon dara moo bëri di sama morom mu bëri daan mu bëgg mu bëgg a bëri ak man lii ma war a ci am combat bu yàqu moo waroon ma jël ko mais pas. moom kay nee na na bëri ak yow sax mais daf lay may chance nii rek. te loolu li lay digal nag bul xeex ak moom nag. bu ko aaree may sax man mënoo may may sax si làmb parce que maa ko ëpp coow làmb. yow it maa ko ëpp coow làmb mënuma may sax te maa ko ëpp luñ fay mënuma may sax si làmb mënul nekk maa ko ëpp kase maa ko ëpp coow maa ko ëpp mbooloo te gën naa ne maa ko dàq bëri. léegi ku dàq bëri ku ëpp doole ku ëpp fit. yàlla ko yàlla may ndam yàlla ko yàlla may ndam ku dàq bëri eh. dàq xeex ëpp fit gën a sonn gën a wàcc. yàlla na yàlla may ndam mu ngi koy nee mu fokkee combat bi mosu koo fonk ndax dem na Kayar dem na fu nekk pour waajal combat bi yëpp ne na ci teqal da nga ko teg teqal ko man man góob gis ak xam nga combat bi laa ko teg si entraînement bisuma ko stade dimanche incha allah dina xam ne si entraînement laa ko teg li foog amul de mu ngi koy nee dimanche sa doole ak si yëpp dina la dina ndax nee na yaa ëpp doole mais li foog amul toog na dima jaxase gars yi naa ma doo gor moo da nga bëri man da ngeen a xamante moom maa ko jiitu Gunaas ma Gunaas laa juddoo te su ron moom moo ma jàngal xeex moo ma jàngal am xaalis Arona Sall waaw parce que bu ma banqué si néegam laay nekk man laa dajal feebaram teg fii di internet laa dëgër waaw yàlla na ko yàlla gërëm ci jafe-jafe yi mu nekk moom ma nekk ñoo ngi nekk xale yi ndaw dafa nekk dafa fooyoo mun na ko limal écrit waalo ñoo xam ne moom xamu leen ba ma waalo moom xamu leen écrit waalo ba ma nekk CS3 boobu moom dekk fa comprendre nga kon donc bu taxee wàcc dafay dafay doy waar rek te si kàttanu yàlla mbaaxam dimanche man damay bàyyi sama kos ko ron moo may ron laay fekk ji moom day ñëw ni mag ron mu ne mu ne kos di la indi. la nekk déggoo si ron laay dem. naka la bataay ngay def naka loo may si làmb si per ron moom laay dem naka loo may conseil si làmb ñu for ci weeru koy ne Mama Lamine ak beneen mbër moo taxawoon ñu jékki-jékki gis Mama Lamine jël avance ki nga xam ne ci nekk dëkkuwante ci simmeeku am nga jàngat boo def sa adversaire est-ce que ne adversaire bi nga dajeel moo gën a jël waat moo a nekk lu gën nga daan bëri waaw dëgg combat bi nekkul sama combat parce que amoon naa combat quoi mu yàqu waaw parce que si ay affaire waaw doo doo ba passé na mu yàqu ci loolu comprendre nga waaw man ak moom suñu allah dara man der laa parce que sëñ Ba contact ñu ko doole foofu aar jege rek nii mooy may contact combat bi yëpp moom may contact. mais ki nga jël bu jëkkee day bëre bu jëkkee day bëre. waaw man ragaluma loolu man bëre laa gën a barki maam Seera Fall ku dàq bëre laa ku may ndaw. man ko ñaan rek. non non allah rabi incha allah rabi jëlaat combat bi si kàttanu yàlla. Mouride Double Moteur. xooluma leen ci mbooloo waxuma si kàttanu loolu demee la maa ngi ñaan yàlla suñu borom suturaal ma yàlla ma yàlla suturaal rek bu ma yàlla suturaalee si kàttanu yàlla maa xam yàlla fayu coono parce que maam Seera Fall dinaa andi ndam incha allah maa ngi dégg samay loxo ñëpp kilifa diine maa leen dégg sama loxo leen wax ñu ñaar ma xam ne combat yi bëgg naa ko lool parce que maam Seera Fall. xoolee ci qualité bëre yi nga xamante yor na ko bëre par rapport ak nga yor na am nga yow ay xarit dama ko sortee di wax ni maa maanaam sawarul ci bëre boo xamante koy dóor croisé droite ndax saa boo ko dóoree croisé mu fu mu su la indilee xeer man ban làmb laa bëre ñu dóor ma croisé droite gaa yi nag sawarul sa diggante gis ko dañoo gis sa ko daal di bëgg non non mais dama rek parce que dama daan di daan dama daan man ñu dóor ma daan ma damay nangu bu ma ñëwaatee damaa confirmé te dinaa confirmé waat incha allah. ñeme nga taxaw moom di xeex ak moom. di dañ ne dama ko restaurant. waaw parce que maam Serap Fall naa jox kanam mu dóor. ñeme nga xeex na say mbokk bu Bamba naa jox kanam gi mu dóor incha allah. mais c'est-à-dire maama nekkul mbër ci xeex ñu ci bëri day bëree boo allah dama demaat noonu incha allah rabbi parce que xal du jëm dama jëm ci làmb dama jëm benn yoon ko wax ma jëm xam li ma juumloo waaw moo tax maa ngi ñaan yàlla daal dama suturaal la allah rabi li ñu gisoon dañ gis lu ko rabi incha allah. waaw avant tout damay avant may sant ñëpp ah. waaw damay sant sama waa ji. waaw moom si. fonk maam Seere Fall kii. Hmm. moom mooy taal otoom chaque jour. dima yóbbu Lac Rose. nga entraîné. barke alxuraanu karim mooy taal otoom chaque jour. Mm. dima yóbbu entraînement. te saa bu ma entraînement ba pare. mu yëkkati xaalis jox ma mareel. day jugee sori. ñoo fi gaal otoom xaar ma man ma indaale samay nit. ñu yóbbu leen si oto bi si charge ñu yóbbu dem entraînement ñu xaar ñu bañ pare mu ñëwaat ba fii nii wàcc jox ma bankal ma xaalis bu ma bañee mu wéef ma ko. parce que maam Serap Fall dem kii oo fayam. ba di def loolu ak loolu kii li mu def ci combat bi man def ma ko ci combat bi sant ma kenn moom laay sant li mu def ci li mu def ci combat bi nii man def ma ko ci combat bi barki Seexul Xadim mobilisation bi maa ngi ñaanal suñu borom may ma ndam ba ma may ko ko moom billahi wallahi taala on est frère dama ko ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal yàlla sutura ak kawe ko ñaanal mu yokk bu faaw barki maam Seere Fall ala ko yàlla aar rek waaw waaw di sant waa Jaxaay yëpp di sant sama grand koñi di sant sama père nga bi tegere bi cey cey mama cey le neuf ay yére yu mën Balaay Bamba Bamba kii. kii kan la dama a àdduna. kii suñu la. ñu jàkkaarloo kër kër gi la dëkk. booy bi ni ma sori galak moom mooy paam. dafa gaañoo fan yii amagul sa 40 jours. moom moo may tëgg asiko. moo may tëgg asiko. estar moo may tëgg asiko. ñu jàkkaarloo kër fii kër gi la dëkk. booy ma sori galak moom mooy paam. parce que maam Seydou Fall. fii la toog sa mbir ma jógee entraînement ñëw. mbir yaa ngi waaj man ko waaj. combat suñu di wax. barki maam Seera Fall daf ma ko wax xëy suba gaañu mais maa ngi ko ñaanal yàlla fi mu tëdd mu gën ko fi mu jugee quoi waaw maa ngi ko ñaanal baax a baax moom suñu benn papa tamit waaw Père de Fall ñu doon ñaanal jàmm bu baax a ak képp ku gaañu suñu lébi di ñaanal suñu benn gaañ tamit yàlla na ko yàlla ñit muy Aliou Mbarra yàlla ko yàlla ñit loxo comprendre nga ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama maam sant sama waa gaal di leen masawu coono parce que ak waa dëmm dëkkandoo yi di sant ñëpp waaw maa ngi bu ma limee damay juum bu ma limee damay juum waaw Kandji waaw baax na ni sax waaw bi wax ne xam nga ko wax le neuf incha allah rabi dinañ kontaan bu soobee waaw di sant sama staff bi maa ngi sant baax a di sant sama grand yi ñoom maam Cheikh ñoom ah, waaw ñoom ñoom yi bu ma limee damay juum booy yëpp zil saaxa ñoom xama jàppale si sécurité bu baax a baax a baax parce que maam Serap ñoom xama zil cek oma seen fay quoi sama booy ma fi du booy seen nga doon ànd jàppal entraînement ñoom raas ñoom site ñoom faamara ñoom ñoom daay daal bu ma demee damay juum ñoom daas ñëpp bu ma demee damay juum parce que maam Serap Fall waaw ah waaw bàyyi bay sama doom la waaw sama wax ne rendez-vous le neuf incha allah rabbi di wax dañ teel a ñëw piqué yi. waaw bu dee yaa ngi fii. waaw gën ñaata bolok nga jël. gën na. ñaata gën naa bolok. ñaata ñaata. bu ma wax fii kenn. kon daa booy neuf incha allah rabbi bi si kàddu yàlla. waaw doole. waaw du waaw ba booy incha allah rabbi. gën. am fay. maa seen booy def déplacement ñoom ñoom ñoom nangu gaay yëpp sama mbër ñoom soxu vite fait njaaxam ko si taaw ñëpp maa waaw Arafat Diop boo yëpp maa ngi sant gërëm daal dama kontaan naa gis naa seen taxawaay waaw